2020. ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk test yi nga xamante ne réalisé nañ ko téeméer ak fukk dellu nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak ñaar moom lañuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi dañ leen di topp te di leen saytu juróom-ñett ci ci Médina am na ñett fii ci Dakar ci Touba am na jur ñeent fukk euh, malade biñ gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróom-ñett cas am nañ ko ci service réanimation mooy ñuy wax service tawetas ci hôpital Fann am na ñaar hôpital principal am na juróom-benn ñi ci des tëdd ci lalu hôpital yi ñu ngi ànd ak tal Sénégal mu ngi naqarlu di am yeneen ñaari nit ñi nga xamante ne làkku nañu génn nañu àddina te Covid 19 bii la moo leen ko teg ñooñu nag ñu ngi nekk benn suñu papa boo xam ne am na juróom-ñaar fukki at ak juróom dëkkoon ca Touba mu ngi génn àddina démb talaata fukki fan ak ñaar ci mois de mai 2020 bi mu egsee rek ci li ñuy wax service de. et d'urgence mooy ci bunt bi ci hôpital Matlaboul Fawzeyni foofa ci Touba. keneen ki fii ci Ndakaaru la ci Ngor moom tamit suñu papa la bu amoon juróom fukki at ak juróom moom itam mu ngi gaañu tey ci fajar gi ci 3h10 du matin mun nañ ko wax ci mercredi bii fukki fan ak ñett fii ci centre Fann fi ñuy wax Kémo ministère de la santé et l'action sociale mi ngi dolli. di euh, jaale ay mbokkam ci ñaan ñoom ñaan ñëpp yàlla xare leen àjjana ci bésu tey bii fi ñu toll ba mbas mi duggee Sénégal ba léegi ñu ngi ci ñaari junni ak téeméer ak juróom ci ñi nga xamante ne ñoo am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñaar ak juróom-ñett fukk ak ñaar wër nañu ñaar fukk ak benn génn nañ àddina ñu toog fii ci lalu hôpital yi tëdd fii ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak ñetti téeméer ak benn ministère de la sant l' action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi du leen wàll wante bu duggee itam du mun a tas ci Sénégal comme ni mu koy defee actuellement ñu ngi leen di gërëm di leen di sant asalaam